Euh, keroog dama fay toog àjjuma nabu koor Pa Assane Socé keroog dama fay toog àjjuma ma wax ne sunu équipe football bu nekk ci amoo de xamul dara dañu koy dóor rek mu mu muy xam loolu laa fi waxoon maa waxoon lool waxet barki Serigne Babacar maa dem koñ ma yow soo xolal wootewul téléphone yónnee nga message ni ko mën dox nañ ba sama kër. dama yow léegi dama li nga wax fan nga ko teg ak lan moo tax nga waxal ñu wax ju rëy ji. amoo deux xam nga amoo deux laa dëkk ndeysaan falaa falaa falaa raame tubaar fa kàll falaa doxee yaa ngi dégg lépp fa la ma fekk tubaar fa kàll yaa ngi dégg ñu ne ma nga dem ba ci 2A TV bi nga yàq ñu lii lépp ma ne leen maa waxoon waxet yow ndekete yow équipe bu amoo yow dafa qualifié ba qualifié de finale man na leen bu ngeen ma ko waxul woon du ma ko xamee nii. huitième dañoo huitième de finale lañ toll ci compétition bi qualifié nañu. Ah, waaw ñoom qualifié nañu fu mu nekk ni huitième waaw dañu war a jouer ci huitième de finale. waaw mooy ne maanaam man li ma doon wax naan ñun ñun dañuy dóor ñun dañuy dóor amoo day dóor. Ah, amoo day dóor amoo day am ndam amoo moo mën ci équipe yi. xoolal beneen équipe bu dul équipe bu amoo day doo équipe maa wax li. mën nañoo football. performant nañu ay xale yu ndaw lañu. qualifié nañu service nañu tubaab fakàlla macha allah kenn du yéen man nii rek laa fi nekkee dama man dama tàmm wax lu ma wóorul yow ñoo koy wax keroog dara leeru ma ci dama nii dama doy waar dama mën a wax lu ma leeru ma. waaw li yee ndekete li li li taasukat ba naan waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bee kaay leen seetaan. defetu mami Samb defet gu rëy. laa am ba xam nga gu rëy laa am. xamuñ ne ren dañuy jël euh, septembre dañuy jël final. xam nga nuñ ma def. <laughs> woo ma xas ma yàq ma kete ba pare dugal ma ca groupe ASC ba. <laughs> dama ne xoolal da nga mën a wax loo wóorul del déglu ngay xam bokk actualité bi fu mu toll. qualifié nañu huitième de finale. ruusuma sax aw ma kersa de maa aw ma gàcce parce que man ay ruus yooyu du ma ci fekk mais mais dama tàmm wax lu ma wóorul. <laughs> tayu ko. li ma mën lu mu li ma doon wax keroog ci affaire foofu dara leeru ma ci ba pare may wax ngaal naa ma dëgg la ah moo dañ leen dañ leen dóoru nekk dañoo am nañ benn niil am ñaari victoire ba ba qualifié nañ huitième de finale yéen a fi mën. léegi xam nga def. waaw amoo. a fi mën. waaw. mooy kilifa bi. Xadija Diélo nga ay mayo. ay ball. ak ball. waaw ay kii nga may leen. ku ku ku ah. non mais sa fans yi dañ ci jàpp. dégg nga xam ak i ak i baax. man moom nii nga def ko. yàlla dara lu muy jar. ah woo sama waa ji Talla Cissé avenue design. Mhm. mi nga xamante ne tubaab fakkaal ñu ñu defoon ne marque bi maa ko moom. ndax tellement daf may defar ay t-shirt ak ay lacoste yoo xamante ne personnalisé man sax defaraguma bu deux ans ba tey Talla léegi da ngaa soppeeku de léegi da ngaa change avenir design sama marque la mayoo lu muy jar. non ça dépend ci qualité yi je du war a cher parce que comme moo koy jàpp ci combat bi. moom moom sax mën na jàpp ci combat bi soo si deux ans ngeen jàpp ci combat avec avec avec 500000 tu peux avoir un bon lot. 4000. avec 500000 tu peux avoir un bon lot. Barke Sëñ Bamba kon xol li ñu am nañ ko footballé. mais mais l'idéal l'idéal pour des pour de la qualité au moins un million nga am de la qualité. waaw yow Pa Assane da nga déggu li ma wax wala yow da nga comprendre mais pourtant ma lay may laaj wolof la de. dama ne. amoo lu quoi parce que xam naa sa yéene fu mu toll. amoo li ñu doon sol di football di dóor nañ problème amul dara amul. 500000 waaw te nga nag yàq der la boobu moom amut. boobu moom xam nga nag yow da ngay wax lu sa yoon newul nee nga. da ngay wax léegi du amut. loolu amut loolu boo moom bu ko fa wax waaw kaay ma rectifier waaw ma ne boo fi waxatu loolu. waxati loolu waxati loolu bul waxati loolu et puis en parlant sax yéen fay nañ leen ba pare fay leen seen bor yi loolu tamit dama leen ko fàttee wax léegi ma ne pour léegi baa doon faraat yéen fayeeku ngeen ba pare fay leen seen bor yi. waa léegi léegi léegi kon kaay ma kaay ma kaay ma defaraat ko. mais 500 mille moom moom ngay am ci am bi. waa léegi léegi léegi dama koy dem dama koy corriger waat eh, su ma fayee ko ba fay li ma war a fay charge ma yooyu li ma des ci weccit boo ko dajalee feeg un lay xaw a tolloo tuuti ak 500 mille. ah eh, a Ibrahima moom dina la jox lot yow yaay choisir. ñaata ak couleur. Ibrahima Traoré moom ci ci commentaire la ne. waaw il faut contacter le service commercial. <laughs> man xam dama bëgg nga comprendre benn mbir internautes yi dama leen bëgg. loolu nag ñu ne ci waaye ci wax dañoo mel ni man. lool ne ñu ne ci laa la wax waaye wax kese waxi dong képp képp man nag damaa tollootul fu ñu may naxee te man waa abo bëgguma ñu koj ma di ba dóor naan yaa taxawoon 2A TV ne dañoo newoon dag ñuy def loolu loo damay ku ma mën a dimbali daal nga dimbali ma te yàlla tax euh, jox la mayo yow yaa ko oh, oh, waaw kay ma indi ko yaa ngi dégg boobaa dama jaral dem ba karagum ruq toog fa <laughs> barke sëñ Bamba duma ci daw euh. waaw léegi nag yàlla baax na comme nag le vœu euh, a été a leneen li ci des nañ ko bàyyi ci di ci loxo yàlla suñu borom ak yéen seen loxo yéen waa 2A suñu borom moo tali. yàlla baax ngeen jël final bi. Hmm? amiin yaa rabbal alamin bu ñu jëlee final bi nag loolu loolu moom ngeen bëgg ko ngeen bañ ko émission spéciale laa ciy def fii ci 2A. yow kan nga kon xanaa man ma ñëw defal euh, waa ASC Cosaan. yow am nga lu la doy émission. yow am nga lu la doy yow am nga combat bi. yow bu dee loolu rek yow da ko war a lijjanti Balla Gaye ak Boy Niang numéro 2 Boy Niang Boy Pikine dëkk lamb est-ce ah, doo seetaan lamb waaw kon baax na ayca gars yi bari ngeen waa kii moom lu mu xew lekk indi ko si suba ba léegi les gens du nord di ko way nii lan la euh, pas non mais c'est l'histoire l'histoire de des gens du nord <laughs> Enrico Macias waaw li dafa am euh, non histoire l'Algérie. waaw ba tey man yow laay xaar de pour nga expliquer ma fi nga jël. l'Algérie le seul pays ami de la Russie. Hmm. un siècle de compagnonnage. moo tax ngay wax les andino di ko way nii. l'Algérie a tout compris moo tax moo tax Europe dañoo respecté Algérie. Hmm. kenn waxut ànd ak Russie nii dangay ngay wut wéeruwaay dëgër. loolooy muus. Enrico Macias moom moo way loolu. les gens du nord. après. ko yow les gens du nord nga jàpp ci way refrain bi ba mu jeex les gens. bés bi la jour. bés bi la jour ñëw na ci dossier déficit d'enseignants.